M avec Sylvie Khadifaye. 100 litres de la parole à la asalaamaaleykum mbokk auditeurs ak auditrices su mi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre di jotaay ndaw ñi fii ci mi FM lay amee mercredi bu jotee 15 jàpp 16h tey ñu dalal Souleymane jalo moo di président zone 2 ODCAV euh, ci nawetaan mi fete fële ca Médina lu ñu fi fas yéene waxtaanee moo di violence ak divergence yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku euh, ci biir euh, waxtaan bi laataa ñu koy jox kàddu gi Mor yaa ngi fi ma nuyu la baax bàyyi la nga nuyoo mbokk auditeurs yi. waaw voilà si maa ngi leen nuyu di nuyu suñu euh, invité du jour monsieur Diallo di nuyu euh, mboolem ñi nga xamante ne ñuy déglu saa su nekk ci émission Espace Jeune euh, dañu déglu ci fréquence bi ak tamit ci li nga xamante ni moom mooy suñu plateforme digitale lu ci mel ne suñu Rewmi officiel ak Facebook bi donc leen jaajëfal leen nuyu baax a baax. Mm-hmm. nga ñëw rek ci rubrique actualité. waaw donc actualité du jour tey dañ ci li nga xamante ne jamono ji moo gën a fës ci actualité bi muy li nga xamante ne moom mooy coowal Imam Sall nga xamante ni. Euh, deux jours yi secoué na li nga xamante moom mooy toile bu baax a baax a baax mhm. muy ay euh, kaddu yoo xamante ni ki nga xamante ni moom mooy imam Sall yëkkati woon na ko jëmle ko euh, ci suñu mbokk chrétiens yi mu nekk loo xamante ne nag daanaka metti woon na Sénégal gi yëpp parce que dafa nekk ay kaddu yoo xamante ni ñu bëri dañ koo ñaawlu ba kii fi nga xamante ni fa la ko waxee woon ñu sàkk woon ci ñoom ñu teg ay daan ba waa teg leen ko aussi teg ko daan ci li nga xamante ni mooy émission boobu mu nekk aussi mu daal di sàkku ci moom mu daal di jéggalu ci li nga xamante ni wax na ko mhm. donc euh, duñ ñëwaat sax si kaddu yi nga xamante ni wax na ko mais juste mhm. euh, dañ koy ñaawlu parce que nit ki nekkul ni rek yaa ngi ci euh, télévision wala mhm. am nga benn kaddu bi ba yenn wax yi nga koy wax parce que li nga xamante ni mooy wàllu ngëm dafa sax si nit ba nga xamante ni daanaka bu ci di wax je pense que war na mën a xalaat bu baax a baax ndax du li nga xamante ni moom mooy kenn ki parce que spiritualité moom moo demee noonu ku ci nekk ak na nga xamante ni moom moom lay interpréter li nga xamante ni mooy gëm-gëmam mhm. donc euh, ku nekk nag euh, boo nee ba am gëm-gëm boobu je pense que dangay gëm li nga gëm la daal euh, jàpp li nga xamante ni keneen ki aussi gëm na ko nga nga nangul ko ko mhm. bañ di yëkkati ay kàddu yoo xamante ni daanaka yow mi ko wax at da nga ci amaat gàcce en même temps mais aussi da nga ciy ñaaw ak ñenn ñoo xamante ni daanaka jàgg ngeen nekk ngeen a lu bëri bëri bëri bëri mhm. donc mu nekk loo xamante ne fi mu nekk daal Sénégal ñëpp ñu ko dégg ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jàpp nañ ne dafa juum bu baax a baax a baax a baax euh, juum dafa am te mm-hmm. moom aussi nangu ñu ne juum na daal euh, mm-hmm. daal dinay jéggalu mm-hmm. aussi démb ñi nga xamante ni ñooy waa église démb wax nañ démb daal di sàkku ci euh, ki nga xam ne mooy président Macky Sall ñu jël si ay matuwaay te day day day yell aussi ñu ni moom mooy ay matuwaay ci wàllu woowu mu yenn dérive yi nga xamante ni mu ngi am ci li nga xamante ni mooy yenn médias yi tant ci li nga xamante ni mooy côté spiritualité mais aussi ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu mërs ak yeneen ak yeneen donc mu nekk li nga xamante moom moo gën a fës ci actualité bi à part euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Barthélémy tey lañ ko doon àtte mu mel ne am na ñaari éléments yu bees yoo xamante ne feeñ ci mbir mi muy euh, li nga xamante ne lañ jàpp ne ne moom moo rey kooku si li jëm ci li nga xamante ne moom mooy rapport nee nañ bal bi nga xamante ne moo ko rey mm-hmm. li li rey kooku dafa nekk position ku ku tëdd mhm. xamante ne moom mhm. euh, ki nga xamante moom mooy faat aussi pa papa mi laaj di si cent cinquante millions ñu ngi daal koy jox ndàmpaay mu nekk ñaari éléments yoo xamante ne nekk nii nit xaar ndax dañ koy daan parce que euh, procureur bi daan sàkku ñu koy daan bu toll ci cinq atu kaso yoo xamante ne dañ ko tëj euh, kii di Barthélemy donc nag mm. ñuy xaar fii ak ngoon ba xam ma fa la euh, mbiri di mujjee euh, parce que ñu ngi continuer di def li nga xamante ne moom mooy procès bi gu ni mel. Mm-hmm. merci beaucoup Mor Fall ci rubrique actualité bi Souleymane Diallo yow yaay président zone 2 ODCAV di organisme départemental de coordination des activités de vacances féetee fale ca nawetaan ñu am mbégte contenté dalal la fii ci suñu plateau ñu bàyyi la nga di yoon teg mbokku auditeur waaw Sylvie jërë ngeen jëf ci invitation bi. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu di nuyu moor mm-hmm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne mooy auditeur u Rewmi FM laa rajo du bonheur. Mm-hmm. di leen wax ni ñu ngi leen di ñaan di leen ñaanal jàmm. suñu mbokk chrétiens yi tey la seen bisu carême bu njëkk. ñu leen di ñaan aussi ñu leen di ñaanal ñu commencé ko ci jàmm jeexal ko ci jàmm. waaw noonu la ak aussi tamit di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci ci Facebook bi. Mhm. merci beaucoup Souleymane bu dee am nga rek loo mën a sànni ci rubrique actualité bi. waaw comme ni ko Mor waxee senegal au delà diine. Mhm. ku am seetlu xam ni muy xeet ak lu mënti doon jàmm lañu mës di dunde mhm. ñuy ñaan yàlla loolu sax parce que comme li ñuy wax jàmm ak wér-gu-yaram ci la lépp sax. ci la lépp mu xaj. beneen bi wax yombul waaye tamit yenn statut yi boo ko amee sooy wax dangay tey ca la ngay wax mm-hmm. sóor bu baax la ngay wax su ko defee néew ñu doo jum mm-hmm. mais li ngay jum du bëri mm-hmm. mais comme ni ko moor waxee rek bu dee ni aussi am na loo xam ni xëy na li koy gën a xëcc di ko gën a yokk di ko bàyyiloo nit ñi xel mooy ñu ciy wax di ci waxaat c'est normal nag nit ku mer ñu ngi leen di masawu loolu ñuy wax ni en tout cas man je musulman mais boo demee fa ñu dëkk wala ba ñu juddoo ba léegi suñuy xarit ak ñëpp doo xàmmee kii mooy lii wala kii mooy lale mhm. ñu ngi ñaan yàlla loolu loolu wéy mhm. te comme jéggalu na te tamit gis nañ ñi nga xam ne ñoo ŋànk mhm. affaire diine chrétien yi ñoom liñ ci sa ñoom liñ ci bëgg soriwul dañu alerter rek vraiment di ñaan nit ñi ñu prudent comme ñaan wax nañu nag imaam sàll mu jéggalu ak waa Walfadjri te defe naa ne def nañ ko ñu ngi ñaan ñi si des rek ñu gën a am maîtrise gën a am dal bàyyi loolu mu sedd mhm. ñuy wax tamit ñeneen ñi yu mel nii plus jamais mhm. loolu bu mu amati mhm. waaw comme boobu ba léegi daal kilifa diine yeeg kilifa aada yi ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk biir société bi jàmm la ñuy dund ñu ngi ñaan laal loolu wéy am na solo merci beaucoup Souleymane yow la ñu dalal yaay suñu ganu bés euh, li ñu fiy waxtaanee rek tey sport la euh, je mm-hmm. pense la première fois ñu àddu jëmale ci wàllum sport di tàggat yaram euh, yow nga jiite zone de 2 ODCAV fii ci Ndakaaru laata lan mooy solos utilité utilité wu ODCAV ci gox waaw ODCAV de Dakar booy seet dafa composé actuellement quatorze zones zone yëpp bu ñu dajalee loolooy former organise bi mooy c'est le département mm-hmm. Mm-hmm. les zones ñoom ñooy former le département de Dakar donc ñun au niveau de la zone de douze ASC lañu cinq yi ñi ngi Médina six mm-hmm. yi Fass benn nekk ci commune Fann Amitié Point E donc en résumé l'ODCAV de Dakar day coordonner les différentes activités des zone njëriñam njëriñam ci population bi wala ci jeunes yi nga xam ne. ñoo ciy nekk xam nga tey au niveau des structures de l'ODCAV comme ni ñuy wax zone yi ASC lañ tey booy xool man je ne suis plus jeune je ne en tout cas jeune ne suis pas vieux mais on est plus jeune boo demee au niveau de l'ODCAV ay mhm. ñu fa ñu expérimenté ñoo fa nekk. Mhm. mais ils sont dans l'organisation des jeunes. Mhm. donc booy xool àdduna comme ni ñuy demee rek toujours foofu xale mag ñi ñoo ciy jàpp. seen utilité lan la. au départ comme bu ñu demee ba vacances xale yi am nañ ay activités yoo xam ni bëgg nañ ko def muy ak activité culturelle mm-hmm. ay activité sportive mm-hmm. léegi jàll na sax ba au-delà mm-hmm. des des actes citoyens donc loolu il faut que am ñoo xam ne nii ñoom ñooy coordonner loolu donc loolu mooy li nga xam ni les zones ak les ODCAV noonu la ñuy constitué wu pour mën ko organiser parce que booy dem tey au niveau des sports amuñu infrastructure yu bëri chaque zone bëgg mm compétir donc mhm. au niveau départemental il faut ñu coordonner loolu boo demee tey ASC yi bu ñu compétiree mu am contentieux mhm. boo niveau première instance bu zone bi tranché mhm. en appel c'est l'ODCAV qui tranche donc loolu mooy li nga xam ni mooy utilité ODCAV mu ngi coordonner daal toutes les activités des jeunes ci ci ci mouvement nawetaan bi waaw man tey damay euh, ñëw ci li nga xamante ne mooy ODK parce que euh, si wàllu organisation lay ñëw parce que je pense que euh, ñu ci bëri boo nee ODK dañuy xaar li nga xamante ne moom mooy mouvement nawetaan ñu ni mel mm. mu mel na léegi dafa mel ni dafa am benn euh, poussée boo am ci li nga xamante ni moom mooy euh, li ni ay yi di juddoo léegi day gis koñ boo xamante ni daanaka li nga xamante ni moom mooy ay yi ñu muy juddoo day bëri trop benn ASC moom dafay nekk mu jeex-jeex même même quartier bi am lu toll ci ñetti équipe ba ñeenti équipe mhm. ñun ñëpp booy mhm. ndax loolu euh, yéen ndax ngeen di def ba ba ba mën a organiser loolu parce que mën nañu wax ne koñ war a mën am benn équipe au moins mais ñu gis benn quartier boo xamante ne am quatre équipes ba cinq équipes mhm. ñoom ñëpp bëgg a mhm. euh, te loolu bokk ci li xamante ne mun mun na sax euh, euh, doole li nga xamante ne moom mooy violence bi ñuy wax parce que ñi mm. koñ yoo xamante ne daanaka dañu ba biir ñu séparé wu ay benn kër mooy séparé li nga xam mooy ñaari quartier yi mm. donc yéen nag ndax ngeen def ba organiser yooyu yooyu la quartier ci biir ci biir euh, association yooyu ci biir ODCAV bi parce que def naa bu dee ODCAV mooy au niveau départemental mm. mais bu dee au niveau communal ndax yéen da ngeen am structure boo xamante ne mooy tënk na sa commune tant d'équipe biir la war am wala boog mhm. nombre équipe bu mënta am yéen da da ngeen di mën a dugal ci biir ODCAV yooyu nga xamante ne ñoo nekk au niveau de mais jërëjëf Mor wax nga yëkkati nga lu am solo. Hmm. mais tey booy seet euh, depuis plus de dix ans xëy na yàgg na ñi nga xam ni ñooy quartier populaire yi traditionnels yi. Hmm. en fait amul une nouvelle ASC. Hmm. gars yi sax boo demee au niveau de l'ODCAV comme li ngay wax c'est inquiétude loolu la ñuy éviter. mais booy seet à Dakar wala ailleurs. à l'intérieur du pays mhm. dina am ay cité nouvelle mhm. donc ñoo ñu aussi bu kër yi di màgg wala quartier bi di màgg ñoom aussi dañuy bëgg constitué wu comme seen morom yi dañuy foog ñoom tamit ñu bëgg doon ASC donc loolu rek mooy indi parfois gars yi jox leen récépissé accordé leen seen ñëw dans les dugg ci ci zone yi mhm. mais gis nga moor suñu waxantee dëgg gis nga tey kër ak kër sax xam nga moo gën a jegante kër ak kër sax mën nañ fubal bu ñu silwisee xam li tax a jóg le mouvement nawetaan mhm. objectif de départ bi tupp mu bañ am benn coow mhm. mais tey da ngay gis yenn pour man yenn propos yi sax encore une fois maa ngi mhm. je partage bonne inquiétude bi da ngay gis tey sur mille personnes wala dix mille yu dem islam cinq wala vingt ñooy indi problème gars yi jël affaire bi en tout cas imputer que le reste te c'est pas comme ça xam nga lan mooy xeex bi dëggantaan am na ñoo xam ni les violents n'ont pas leur place ci mouvement nawetaan bi mais man nag maintenant comme li ñuy wax rek nawetaan gars yi dañ koy bëgg en fait dendale ak violence te c'est pas ça. Mm-hmm. booy dem ci koñ yi xoolal leen au niveau des ASC. Mm-hmm. leen boo demee commité directeur yi des zones et des ASC da nga fay gis des personnes responsables. Mm-hmm. mais aussi parfois comme li ñuy wax rek da nga naan moi je suis. du quartier donc je suis de fait membre de la l'ASC mhm. te booy seet parfois kooku aussi koo xam ni ku doyee di lay doon ci nga bokk gaa mais il n'est pas responsable il est violent ñu ñu bëri di ko moytu boo demee stade bi sax au niveau des stades ñoom la ñuy gën jox en tout cas des des responsabilités mhm. et puis c'est pas comme ça mhm. mais pour dalal sa xel au niveau de l'ODCAV au niveau de l'ORCAV wala de l'ONCAV ay ñu responsable ñoo fa nekk gis nga balaa ñuy jox récépissé wala ñuy accordeel kenn sa appartenance dans une zone mm-hmm. gars yi dañ koy xool xoolaat ko mm-hmm. depuis fort longtemps quartier ASC traditionnels yi ñi ngi fi mais ñi nga xam ne en fait la ñuy bàyyi ñu ñëw mooy les nouvelle cité mm-hmm. Euh, mais mais ci ci loolu est-ce que est-ce que mm-hmm. dina am benn enquête booy def au préalable parce que euh, nit ki na mën na ñëw ne man fii euh, bañ fa dëkk see yàggul wala ba quartier bu bees la dañ mm-hmm. léegi dañoo def benn genre acte trois de la bi léegi ñoo na séparé na koñ bi léegi bokkuñ fii mm-hmm. ñu ñëw bëgg a bëgg a créer seen ASC bopp alors ñoom ñu ngi si benn biir ASC ndax loolu daa am enquête booy def ngeen soog a mën a délivrer loolu wala bokk nit ki day day ñëw rek am na am naa nombre am naa nombre de personnes yi nga xamante moom la ñuy exiger ngir nga mën a constituer en ASC ñu ñu ñu délivrer ko loolu nga nga ñëw. mooy li ma wax rek gis nga mbir boo ko soree. Hmm. sore nga ko. Hmm. mais gis nga au niveau zonal. Hmm. au niveau départemental au niveau régional. day am enquête avant région bi wala ONCAV di décider c' est pas les zones. adhésion au ASC c' est pas c' est au niveau zonal. c' au niveau régional. wala au niveau national. donc étape yooyu yëpp comme li nga wax. gars yi dañ procédure bi noonu la day am enquête beneen bi bu ñu fàtte mukk ni ceux qui dans les ASC wala dans les instances kenn gënu leen xam li nekk au niveau des quartiers donc loolu mooy le problème maintenant comme ni ñuy wax rek su dara juddoo dañuy foog dañ koy dañuy foog ni fu lii lii mooy cause yi wala lii mooy raison yi mais yàlla xam na ni ce travail la xoolal rek au niveau des archives wala nga xool au niveau Dakar wala nga dem Thiès wala fu nekk yi li ngay gis en tout cas ñu nangu adhésion nouvelle ASC tuuti la te boo koy xool ba xool day doon ñoo xam ne nii ay comme ni ma la wax rek ay habitation nouvelle la wala ay cité nouvelle mhm. euh, gis nañu ODCAV daa tënk regroupé euh, activité yu bëri ay disciplines yu bëri mhm. mais day mel ni dañu euh, teg accent bi ci football kese mhm. lan moo a loolu waaw effectivement gis nga chaque année football bi moo gën a fës mais dañ koy nangu nag les zones te du ñëpp c'est pratiquement booy seet à Dakar mais boo demee à l'intérieur du pays la culture gars yi dañ dañ dañ dañ ci la culture daf ci am doole mm-hmm. en tout cas ñi ngi pratiquer la culture chaque année en début de saison ONCAV day jënd benn courrier wax ni en tout cas le thème culturel de cette année lii la mm-hmm. ku ko deful dañ lay amender. Mm-hmm. l'amende passe du simple au double ne prochaine. Mm-hmm. mais maintenant nag comme ni ñuy wax sport bi football bi moom la gars yi gën a di pratiquer. sooy wax sax dëgg ah, te loolu yàggul bañ ciy waxtaan ñu nag le président Amadou Kane ak le président Momar Lo de l'ODCAV ni culture bi moom foog ñu delloo ko place mm-hmm. jar na sax nga dem ba ñu désaffilier l'ASC xëy na. parce bu dul culture bi. lu bëri gis nañ ni mën na remédier xëy na wàññi bu baax la violence mm-hmm. donc côté boobu vous avez parfaitement raison mm-hmm. la culture c'est la c'est en tout cas le parent pauvre du mouvement nawetaan mm-hmm. mais toujours est-il que aux phases nationales depuis des années amul phase nationale bu amul en tout cas compétition culturelle loolu moom seetlu ko ci mais maintenant au niveau des zones effectivement c'est le parent pauvre gars yi au niveau national wala au niveau départemental. Mm-hmm. de tous les départements mm-hmm. nag. Mm-hmm. mais c'est surtout nag ce problème mm-hmm. Dakar nag koy nangu te dee mm-hmm. Dakar rek lay posé mais partout ailleurs dans le dans, à l'intérieur du pays la culture est présente mais est-ce que le problème moo def promotion yenn sport parce que euh, man man damay wax sama bopp man ni ma ni ma gisee euh, bu boo nee ODK wala boo boo nee nawetaan football la ngay xalaat mais alors que euh, ko ñi am na ñoo xamante ñi ngi def basket am na ñu def handball ñu def leneen bi am na mbër koñ bi am na mbër pourquoi pas ñu def ay ay ay yooyu yëpp am na sport mais boo nee nawetaan rek Sénégal li ngay njëkk xaar mooy football kase kase kase ci nekk ndax problème euh, euh, def promotion li nga xamante mooy sport la wala boog yéen ñi nekk ci ci ODCAV bi seen xel dafa màcc rek ci wàllu football moo tax euh, vous ne cherchez pas à à la promotion des des des, des autres sports. mais effectivement Mor le football c' est activité leader. Mm. mais lépp loo xam ne nii jàpp nañu. Mm-hmm. day développer le mouvement nawetaan indi ci jàmm on est preneur. Mm-hmm. vous avez parfaitement raison. dinañ ci gën a xalaat. mais comme li ñuy wax déjà ñu ngi ci football bi mu am quelques problèmes waxuñu ne dafa am problème mm-hmm. quelques problèmes liés à la violence te du ñëpp de mm-hmm. donc loolu ñi ngi ci mais comme ni nga wax ni en tout cas dinañu waxtaan ak ay nit ñu defan des propositions par mm-hmm. rapport à ça parce que effectivement ku ci nekk rek ci quartier la nit di def da nga ci war a gis sa bopp ku ci nekk ak la la intéressé comme li nga wax am na ñoo xam ni làmb moo leen intéressé am na ñoo xam ni football bi am na ñoo xam ni handball lu ñuy war a mën a gën a xalaat la. Mm-hmm. def la promotion de la lutte la promotion de l'handball la promotion du basketball. Mm-hmm. donc comme ni nga à la sortie de cette émission xam naa ne gars le président Momar. Mm-hmm. ak le comité directeur de de l'ODCAV de Dakar ñu ngi ci. mais terewul dinañ leen ci gën a soññi rek gën leen ci wax balaa déwén. mais loolu yéen ko war def wala boo ko ministère bi yore waa sport moo ko war def parce que je pense que yéen da ngeen euh, boot seen ginnaaw mais comme li ñuy wax xam nga àdduna te yaa ngi fi. Mhm. vous n'êtes pas membre peut-être de l'ODCAV de Dakar. bu ma parler de ça automatiquement ma xam ni c'est une très bonne idée. Mhm. après ñu épouser ko. Mhm. ministre ministère en tout cas nous avons de très bonnes relations ak moom te moom lépp loo xam ni jeunes yi ñu ngi ci mu doon loo xam ne buñ ko defee mu doon jàmm ñu gis ci seen bopp. moom mi ngi ci donc ci côté boobu lañ koy waxee. am effectivement lépp moom mi ngi ci. donc mais bu ñu ko ko gënee wax muy jur jàmm rek te ñëpp gis seen bopp incha allah dina ko def bu soobee yàlla. Mhm. Euh, activité nawetaan yi football bi ci période vacance la doon nekk maanaam euh, trois mois de vacances yi nga xam ni xale yi euh, moom la ñuy toog di ko noppalu mais gis nañ léegi day dem ba ci biir année scolaire bi lan moo waral loolu. waaw loolu débat la chaque année. Mhm. mais bu dee au niveau de Dakar dañu am problème infrastructure. Mhm. bu njëkk ba on abe démb Diop. on avait stade amitié mhm. stade Yoff di dox Dakar terrain mobile da nga daan utiliser terrain vague mais tey bu ñu waxantee dëgg rek lu bëri sañuñu ko ci terrain vague xalaatoo ci di fa yóbbu benn kusum xandaalu mhm. stade Iba dem nañ ba benn Delorme HLM Fass xajatu fa mhm. benn njàccaar mboti pam xajatu fa donc on est obligé ñu bëri Demba Diop moo fi nekkoon match yu bëri rencontre yu bëri ñu leen di déplacer à démba Diop. Mhm. beneen bi tey ça fait quatre ans léegi mu ëpp cinq ans Demba Diop benn stade Demba Diop te fermé na malheureusement benn stade lañ fi am. au mhm. niveau de Dakar depuis trois ans. mooy mhm. stade Iba Mar Diop. ñëpp bëgg fa en tout cas dérouler seeni compétition. kon problème bi problème stade problème infrastructure moom moo posé wu surtout problème infrastructure dafay posé wu. beneen bi aussi leneen mooy en fait comme li ma wax rek léeg-léeg ñu joué ay match yoo xam ne day am incident mais le préfet wala lu sous-préfet jël arrêté suspendre les nawetaan wala parfois aussi suñu suñuy autorité l'ONCAV wala l'ODCAV pour en fait mën a ouvrir une enquête mm les responsabilités mm -hmm. savoir ce qui se passe momentanément mu suspendre en tout cas les les nawetaan mm-hmm. mais jàppal ni li ñuy li ngeen di wax wala lu lépp luy seen inquiétude rek luy inquiète population bi ñun aussi loolu da dañ loolu aussi ñun tamit lu ñu lu ñu mettre bu doon suñu sago dañuy commencer le premier avant l'ouverture des classes mhm. le 31 septembre wala au plus tard le 15 octobre mhm. gars yi compétition yëpp gars yi joué seen finale ba mhm. joué finale départementale parce que loolu man fekk na ma fi j'ai été joueur noonu la daan demee def naa cadet def naa senior nekk naa entraîneur cadet joué naa aussi senior ba tey man ma nekk euh, membre commité directeur de l'ODCAV de Dakar ak de l'ORCAV de Dakar nekk président de la zone de mhm. mais effectivement noonu la doon demee mais tey les jeunes de Dakar surtout nag les jeunes de Dakar vraiment parfois tu que ni gouvernement bi xooluñu bu baax quoi on a des problèmes de d'infrastructure pour mën a en tout cas dérouler suñuy activité au niveau de Dakar. Mhm. Euh, ndax loolu dafa jublu rek ci li nga xam mooy aussi li may wax sànq mooy nombre de d'équipe bi am ci kii parce que boo amee nombre de d'équipe yu euh, xamante mooy phase de groupe ba nga def phase euh, éliminatoire ak yenn yenn est-ce nekk groupe équipe aussi nekkul moom mooy tax mooy yeexal mbiri parce que je pense que bu nee 3 mois war na ci mën a def li nga xamante moom mooy compétition ba dem final bu Coupe d'Afrique 24 équipes wala 22 équipes ñu def ko en 9 mois pourquoi pas ñu jéem xool naka la ñuy li nga xamante ni moom mooy nombre d'équipes wala boog test wala test wala boo koy genre phase yoo xamante ne moom mooy tax ñu xam ñan ñooy qualifié mm-hmm. euh, pour compétition yi est-ce que jotul ngeen ngeen ngeen changer méthodologie bi nga xamante ne mooy mooy ngir ngeen mën respecter calendrier wu euh, trois mois yooyu ñuy wax mais Mor effectivement xam nga tey mm-hmm. li changé nombre d'équipes yi augmenté bëriwul de manière considérable mm-hmm. te pourtant loolu comme ni ko Sylvie waxee noonu la mësoon doon demee dañ doon commencé début juillet wala mi octobre doon na fekk lépp pare loolu mën na nekk ba léegi mais benn stade seulement daaw la yaraax soo ko ubbi ba ñu pratiquement fin octobre début novembre stade des Parcelles Assainies ñu soog ko terminé des na sax ba léegi ñu ciy remercier yenn autorités yi donc loolu mooy suñu problème coupe du monde wala coupe d'Afrique gars yi dañuy yor plusieurs stades quatre cinq six stades mais benn Iba Mar rek wala benn Demba Diop mais mu te te xam nga tamit au fi il am équité il ma que mu am justice quartier bu nekk parce que loolooy neexal mbir yi. Hmm. quartier bu nekk day bëgg ASM quartier bu nekk day bëgg bokk. Hmm. mais tey xorom si xorom si mooy li ma wax rek bu ñëpp silvisee doon ñu woon sax soxla service d'ordre hmm. bu ñëpp silvisee woon. du ñu sax service d'ordre du ñu soxla service d'ordre mais ASC bu nekk koñ bu nekk quartier bu nekk day bëgg construire en ASC dem fu joué ji ñëwaat. donc loolu mooy le problème dañu am problème mu peut-être discipline problème mu correction ak responsabilité mais surtout nag problème infrastructure mm-hmm. loolu mooy li nga xam ni moom mooy le mal du mouvement nawetaan aujourd'hui au Sénégal mais plus particulièrement à Dakar. Mm-hmm. gis nañu violence yi wax yaa ngi koy évoqué sànq bëri na lool at bu jot. Mm-hmm. day mel ni violence yi gën a jéggi dayoo jeunes yi dañuy yàq dañuy xeex. gaañante fii deret ji tuuru mhm. est-ce que jotul euh, ñu repenser vraiment l'esprit des navétanes mais Sylvie gis nga violence baaxul fenn baaxul fenn te ñun ñëpp on est en train de démissionner muy làmb lu mu mënti doon ceux qui sont ñoom ñooy teg leur loi ñoom ñooy def leur loi mhm. comme man li may wax chaque jour bu saa yu ONCAV arrêté le nawetaan wala le préfet mois je dis clairement que je ne suis pas d' accord pourquoi dix mille personnes nekk stade cent wala cinquante sciemment cent wala cinquante sciemment indi problème pour def leur forfait aujourd'hui am na ñoo xam ne tey moor ñoom soo machine nulé xeex su gañee soo gañee xeex bu ñu la gañee nga xeex xam nga kooku finalement buggoo lu dul violence am au niveau du stade pour nga def li ngay def loolu mooy la problème beneen bi gis nga il faut que les ASC prennent leur responsabilité am na ñoo xam ne même boo dëkkee ci koñ bi boo yoree benn comportement waroo ci bokk tu ne dois pas être membre mais quest que je vois parfois man je ne suis pas d'accord léeg-léeg nag nga nekk ci mbir mbir mi neexu la tu obligé ngay ànd ak ñoom di dem ci loolu ba xëy na yàlla def mu dañ mhm. mais pourquoi ceux qui am na dans des structures ceux qui mhm. ñoom sax ñooy gunge équipe bi pourquoi ceux qui sont violents wala nga am doole wala bëri soir yaay toog ci banc de touche bi dangay bokk ci officiel mhm. pourquoi parfois tamit parfois da nga naan l'autre ASC laa fee am na koy xeex foofu te kenn du ko def dara moi je suis obligé de le faire mm-hmm. pour ma defendre mm-hmm. mais je pense que ni loolu du loo xam ni xel la walla lu jaadu la mm-hmm. encore une fois suñu bëggee violence bi dem lépp loo xam ne dañuy fo mu yegg ci jàmm ceux qui sont violents nañ leen punir nañ leen punir il faut que les forces de l'ordre en tout cas def leur rôle mais ñun aussi man ak samay morom on ne joue pas le jeu te ça se comprend. da ngay gis koo xam ne sa jarbaat la. wala sonn ci ASC bi def loo xam ne teguwul au niveau de sat magam wala rakam parce que ci yéen la ñëw ni leen dem leen ngeen ñaanal ma ko ñu bàyyi ko xam nga tu es obligé nga dem defi loolu. loolu moom fi lañ ko fekk. xam nga maslaak fi la nekk. mais am na yoo xam ni su fa yeggee tant que séviruñu loolu defuñu séviruñu loolu du dañ. àdduna lu dul jàmm bu jàmm amul ci. dara du dox du mën a dem ceux qui sont violents il faut gars yi arrêter loolu mm-hmm. moo tax gis nga day baax dans les stades dañuy ñaan léegi dans les nouvelles strat infrastructures il faut ñu def fa ay caméras de surveillance pour ñenn ñi nga xam ne bu ñu leen reconnaître gars yi xam loolu ñu tere leen ñu ñëw di bokk suñuy compétition wala ñu en tout cas punir leen très très très sévèrement il faut que ñu leen di emprisonner mm-hmm. waxuñu nag ñu juum ñu gis nit dans la foule parce que ñii doon sànni ñu tourné jàpp ma wala jàpp keneen ñu xam ne ñu ni ci la bokk non il faut ñu identifier leen am preuve que ni kii ci la bokkoon mm-hmm. tant que loolu defuñu ko en fait saafara si du am Ah, Sylvie loolu ma yokk ci leen parce que je pense que affaire euh, violence je pense que même buñ ne police ak yu mel seen loxo mi ngi ci mais ñoom parce que mel ne ñoom euh, euh, d'habitude seen biir xam équipe violent yi man damay jël exemple fi nga xamante ne fa dëkk muy yëmbal buñ ne équipe farba day football wala bu wala bokk yu mel ne ay guy gi dañ naan la der la violence day am ñu gis ñu bëri dañuy teel a ba teew ñu bi ba dañ naan équipe yi fu ñu jaar xeex day am hmm. ñoom nga gagné nga ñaax gagné dañ naan équipe temps day xeex parce que Fara dëkk nekkul da dameen di euh, wax lu ñaawal affaire mais juste dañu équipe Fara bu fu mu footballee mhm. ñëpp xam ne violence day am donc yéen ñi xam ne yéen a ODCAV nga xam ne équipe bii à chaque fois bu violence am ngeen continuer di ko bàyyi muy compétir mhm. pourquoi pourquoi loolu mhm. aussi leneen moom mooy li nga ne euh, problème infrastructure am nga aussi neexul aussi nit ki euh, état bi jël xaalis di ko def ci stade aussi ñu ñu koy yàq boo ne caméra de surveillance euh, ñu ne installé nañ caméra de surveillance benn match ñoo ñu toj yàq lépp je pense aussi état bi du am benn lu koy encouragé ngir ma mën day jàppale jeunesse ngir defal na infrastructure gis nañ ne lamb ji doon nañ coow coow lu bëri ay li xamante ni mooy wàllu stade defal nañ ne stade gisoo la ci am tabaxal nañ ñu le nouveau stade stade Abdoulaye Wade premier jour bi ñu ko inauguré ñu yàq fay affaire mm. donc est-ce que nekku aussi ñun esprit bi nga xamante ne moom mooy mooy esprit euh, nawetaan moom moo ancré ci ci Sénégalais ba waral fu mu nekk nii mhm. le le l' état du Sénégal ne veut pas investir sur sur sur la jeunesse à travers le sport day day day day préférer dem ci yeneen euh, instance yi euh, daa daal di investir foofu moo gënal moo day investir pour la jeunesse à travers le sport parce que mhm. à chaque fois c' est eux qui qui véhiculent li nga ne moom mooy wàllu euh, violence ba yu mhm. donc foofu est ce que yéen responsabilité ngeen xam équipe yi sont violents ngeen tegaleen ay daan soit da nga naa leen jouer à huis clos wala boog dañ leen di euh, restreindre seen nombre de de supporters pour au moins ñoom bu ñu leen ko defee une fois deux fois seen recette wàññeeku boobaa ñoom nañ xam benn yoon naka la ñuy encadrer seen ay supporters ni mel. mais effectivement moo c'est-à-dire comme yow yaa ngi Farba. xam naa ni boo xamul lépp tamit xam nga tuuti ci mouvement nawetaan. Mm-hmm. gis nga nu à travers no commission de qualification règlement et pénalité. Mm-hmm. on a prévu des sanctions chaque année bu tuutee ba tuuti zone bu nekk wala ASC yu ko def lu nekk da ngay gis ni soit suspension wala sursis wala ñu en tout cas infliger des sanctions financières mm. mais parfois tamit l'ASC danaan est-ce que loolu mooy régler problème ils son dix mille dans le quartier wala vingt mille quatre wala dix ñoo indi problème bu toll noonu man kañ je dis que ni am na ñoo xam ni xam nañ leen duñ leen dénoncer effectivement ASC yi dañu mérite elles méritent des sanctions. Mm. très très très sévères parce que elles sont complices de ces gens-là mais am na ñoo xam ni par contre. Mm-hmm. ay nit ñu responsable lañu ànduñu ci dix wala trente booy yooyu loolu ñuy def. Mm-hmm. man au niveau de ma zone. mais y a une ASC yoo xam ñoo xam ni chaque année on suspend cinq à six parce que xam nga lan mooy problème bi ñooy ASC yi dañu populaire ñooy ASC yu gën a populaire. Mmh. boo amee seetlu dëgg di nga gis ne ASC yoo xam ni ASC yi nga xam ni en fait du drainer tellement de de de de de spectateurs wala amul supporter ñooñu ñoo ëpp jàmm. Mm-hmm. mais ASC xool ko au niveau du Sénégal. Mm-hmm. ASC wala au niveau de nos zones. ASC yu gën a populaire. Mm-hmm. mooy des les ASC à problème. parce que dañuy am problème maîtrisé. en tout cas leurs supporters. Mm-hmm. Mm-hmm. donc foofu mooy li nga xam ne mooy problème bi fa la nekk. Mm-hmm. effectivement que que mu demee noonu que mu ñàkk demee noonu ñun on a pris des sanctions. chaque année ASC bu ko def sanctionné nañ la. soit on te suspend à deux ans. trois ans quatre ans boo demee au niveau de Rufisque xëy na boo niveau au niveau départemental man man au niveau de ma zone cette année rek on a suspendu une équipe pour vous dire gars yi ñu ngi def lépp pour jàmm mën a am mais est-ce nekkul tax aussi yéen aussi xaas bi équipe buy andi chaque jour benn recette euh, cent cinquante mille deux cent mille nga nga xëy nga xam kii su ma ko ajee nga nag foofu la nit ñi di juumee mhm. chaque fois dañuy indi xaalis di indi waxu xaalis parce que ñu bëri lañu xaar dañu mais ñun non parfois nos charges organisationnelles parfois sont supérieures aux recettes mhm. c'est pas ça xam nga lan moo tax équipe bi li ñëw mhm. duñ ko nëbb c'est pas tabou parfois yow dama lay xam xam ñeneen ñëpp ci jàmm nga suspendre leen ñu def appel appel confirmé effectivement ñu tëdd benn année ñu ñu purger une année de leur de leur sanction mm-hmm. mais dañuy def délégation wala da mais parfois des autorités ñoo lay woo mm-hmm. c'est pas parce que c'est politique mais effectivement dañu gis ni ñeneen ñëpp ñi ngi fo ñoom fowuñu jàpp nañ ni xëy na loolu yedd na leen suñu ñëwaatee dinañ régler xanaa xam loolu mën nañ leen ko may mm-hmm. parce cent comme ni may wax chaque jour benn nombre matul la tiers dëggal un un centième mhm. des habitants wala des membres de cet ASC là mhm. nga ni na ko indiwaat mais malheureusement mooy li nga wax am na ñu bëri aussi du ñu jouer franc du ñu dénoncer wala ñoo duñ leen wax dëgg wala duñ leen écarter mhm. parfois la police day dem ba day wax ni parce que parce que chaque chaque à chaque rencontre de derby wala bu dul sax derby on on organise des rencontres pour préparer ces matchs là parfois avec le préfet avec la police wala avec les présidents d'ASC les présidents des comités supporters sont invités parfois à nos réunions ñoom ci boppam effectivement dinañ jouer seen rôle dem sensibiliser mais finalement tu te que ni est-ce que du xonwu nawetaan yi moo jàpp boy yi jour buñ la gënee wax ni tey ñoom ci boppam ñooy ànd dem stade parfois mm-hmm. ba dugg mais daal defe naa xamu ñoom lan la ñuy bañ arbitre ni hors wala bii dugg kenn du gañe kenn loolooy mbir yi loolu la ñu nangootul mm-hmm. donc c' est ça le problème mais du mm-hmm. aspect financier bi mm-hmm. parce que dina y a un financier on te dit que ni soixante quinze pour cent des recettes nettes parce que tey nit ñi xamuñu ni stade bi da nga koy loué. Mm. foog nga ñëw si kaw a kii bi demee organisation yeeg yooyu. bi mais les bénévoles kan mooy jël du amul mais kan mooy toog suba ba ngoon ñëw fa pour organiser ñëw fa à dix heures. doo ko restaurer buy njibbi doo ko jox transport la croix rouge c' est vrai bénévole lañu mais di nga bu ñuy ñibbi di nga leen transporter l' arbitrage n' est pas gratuit am na yoo xam ne doo ci dugg comprendre nga mhm. la délégation de match ñi nga xam ne ñooy les officiels danga noonu lañ ko tuddee da nga leen di transporter c' est à dire am na match yoo xam ni am na match yoo xam ni suñu les charge recettes yu couvrir ko yeneen rencontre yi moo koy couvrir donc boo defee cumul des dépenses wala cumul des recettes soixante pour cent yi da koy jox ASC yi mm-hmm. mooy seen quote-part ñoom ngay partage mm-hmm. les vingt cinq pour cent loolu day dem fonctionnement zone mm-hmm. zone bi dafa am siège zone bi day photocopier des feuilles de match zone bi day téléphoner day jënne des procès verbal photocopier jox ko à toutes les ASC donc loolu mooy li nga xam ni mooy le minimum mais amul leneen. mais maintenant comme ni ko sama kilifa gi rek di waxee mais am na yoo xam ni boo réglé problème mu ASC yëpp ba mu féete boor xanaa nag li ci des xanaa di nga am loo njibbe def ko sa poche. amul fenn foo xam ne ci àdduna gars yi parfois dañuy wax xaalis gars yi di waaf amul fenn foo xam ne ci àdduna gars yi dinañ fa dem parce que lépp loo def xaalis la te xaalis sawaay doo ko am. Mm-hmm. yaa le minimum. mais amul xoolal le mouvement nawetaan amul kenn koo xam ne nii tey. mais xool ko sa koñ c'est-à-dire loolu ngay xool. xool ko les présidents de zone le présidents d'ASC wala les membres du comité directeur. parfois tu te dis kii sax lii kii lan lan moo ko ci bàyyi. mais parce que xam naa nit ak nit dem naa bokk loo xam ne nii peut-être sa loisir la ci man xam xam naa ci ay nit. donc loolu rek mooy li nga xam ni moom moo ci nekk. Mm-hmm. mais amul benn ASC boo xam ni sa capacité financière. Mm-hmm. moo la bàyyi au niveau des zones. seen euh, ressource foo leen koy tirer pour organiser match yi wala dafa doyul. non moom laa lay wax xam nga yaa des recettes nag lu mu metti metti am na des rencontres yoo xam ne day am recette. Mm-hmm. léegi dans ci recette yooyu ngay puiser. non amul budget boo xam ne amul budget bi ñu leen di bi ñu leen jox wala ay yu jógee ci euh, côté. mairie ci laa ci laa jëm. Par exemple, au niveau de Dakar, nous recevons des subvention La subvention de la ville de Dakar. Mm-hmm. boo niveau ba demee au niveau am na certaines zones yoo xam ne bu ñu ci demee les maires de leur localité dañ leen di subventionner mais boo xoolee charge yi parce que dina am journée yoo xam ne da ngay déficitaire tu es obligé nga puiser say recettes du ay milliards du ay millions. Mm-hmm. parfois deux cent mille la deux cinquante mille cinq cent mille bu bëree ba bëree peut-être la ville de Dakar jox les zone un million xëy na. loolu la looloo ci nekk. Mm-hmm. maintenant boo demee ba final nga am parrain parrainé woo ko ko pour dara mais léeg-léeg nga ne ko moom tamit mu appuyer mais ku xam finalu zone yi. Mm-hmm. nga mës fa ñëw di nga gis charge yi. Mm-hmm. di nga gis ni la sécurité. triplé nañ ko wala quadruplé nañ ko di nga gis ni en fait bu pose jotee wala dara. yaa am na rafraîchissement. am na. resto de gars dañuy resto dañuy dañuy lekk dañuy naan mm-hmm. donc loolu la et puis y a des récompenses mm-hmm. demewul noonu mais ñi nga xam ni say partenaire lañ nekk ay bénévole wala des joueurs wala la Croix-Rouge ku ci nekk gars yi dañ lay récompenser mm-hmm. donc loolu la rek loolu mooy li nga xam ne mooy suñu mooy composer les budgets des zones te du ñëpp a ko am nag du ñëpp a ko am te aussi euh, jéemoo leen ut ay ay euh, projets yoo xamante ne dina tax euh, ngeen mun di am loo xamante ne moom mooy tax ngeen am ay ay fonds de roulement yoo xamante ne dina tax kii bi di continuer parce que je pense que am na ñu bëri ñoo xamante ne naan pourquoi pourquoi li nga xamante ne mooy ay seen président yi daanaka ñoom au lieu ñoom ñu ñu servir li nga xamante ne mooy ASC ñoom ils se servent li nga xamante ne mooy mooy ASC yi euh, ku ci mel ne euh, man ma ñëw ne ASC laa bëgg a laa bëgg a gérer hmm. alors que wecc ci am ak yéen subvention yi moo tax ma ci rey sama bopp alors que euh, bu ñu jëlee exemple ku ci mel ne Mamadou Gueye nekk léegi le nouveau maire de Djiddah Thiaroye Kaw hmm. nekk président bu ASC Pikine kooku mën nañu wax ne amul dara lu muy lu muy ut ci ASC peut xool au de de euh, ay personnes ressources yoo xamante ne nekk seen carte ngeen jëm di leen ligi euh, faire parrainer des équipes pour que au moins équipes ay problème euh, subvention yi ko vingt cinq pour cent au moins yéen seen kees gën di gën di jóg pourquoi jëmaloon teg ay projets yoo xamante ne day nekk projet yoo xamante ne à long terme day continuer di may kees gi li nga xamante ñëw mm. ci maire yi ci personnes ressources yi ak yeneen ak yeneen mais Mor gis nga li nekk ci Mamadou Gueye boobu mm. man de seede naa ni moom moo nekk ci président ASC yëpp commencé ab sama président ASC man au niveau de l'ASC Ndiathiar nit ñi ñooy foog rek mais ku xam ASC nu muy doxee bu koñ bi defee mille francs président ASC bi des na dix mille dem nañ sax boo bu fekkee ni yow yaa ngi dem ci ay assemblée générale wala ngay seetlu ay équipe tu vois que ni gars yi du ñu élire koo xam ne nii dafa mel ni man wala keneen ku sant ba dañuy xool ka nga xam ne jàpp nañ ni yàlla dimbale ni ko ñu soog ko élire pourquoi parce que jàpp nañ ni problème bu ñu am moom mu def ca dara donc noonu loolu mooy li nga xam ne mooy noonu lay demee mhm. beneen bi li nga wax xel la xam nga tey am na ñu bëri au départ yu bëri sawaroon nañ ci mais avec la violence ñu bëri sa dañuy dañuy dellu ginnaaw mhm. même bu dul dara même les seulement les cotisation wala la vente de carte na mat su jot tey nga ni ba ak beneen équipe équipe bi nga xam ne xam nga toujours day am derbi. Mm-hmm. nga ni koñ bi million nga nga soxla balaa ngay tëdd ñu jénneel la ko parce que derbi la rien que les parfois rek gars yi doxal na li nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy mbir yi mm-hmm. te amul leneen les recettes di nga xam ni ASC danañ ko am wax dëgg yàlla parfois doy na parfois sëkk bu fekkee ni gars yi xam nañ ni ñuy doxalee mais effectivement adduna day dox addunay mm-hmm. day dox ci ci ci côté yu bëri effectivement il faut gars yi gën a mën a professionnel gën a mm-hmm. organiser wu gën a trouver des ressources additionnelles te ñi ngi ci ku ci nekk ak nag say réalité mm-hmm. say réalité localité say sa sa réalité environnement mais maa la wax ni ku ci nekk fexe nga ba am ay recette ressources additionnelles pour mener à bien tes activités. d'accord mmh. euh, six minutes moo ci des bëggoon naa laaj la ci côté euh, divergence bi nga xam ne mooy am souvent. Mmh. Euh, ODCAV ak ONGAM di organisation nationale de gestion des activités de masse bi nga mmh. xam ne Ousmane Yane Thiam moo ko dirigé. souvent lan mooy waral divergence boobu loolu. waaw xam nga man su may wax tamit damay wax ci li ma xam. Ousmane miinu ko trop mais dama koy déglu am na ñoo xam ne tamit suñuy suñuy xarit lañu. nekk ak moom ay xarit tey Amadou mii sax di Amadou mii nga xam ni doon nañ ko jéem mu am problème ak ñoom tey Ousmane rakkam la xaritam la. Mm. mais xam nga nawetaan nag dafa am ay tex mm. la minorité se soumet à la décision de la majorité te noonu la demee Amadou affaire yi ASC la ñu mandaté les délégués yu war a dem à l'ODCAV ODCAV ORCAV ORCAV ONCAV te bu ci nekk rek day am délégué am assemblée général mm-hmm. tenue régulièrement ces assemblées générales yooyu ñoom ñoo élire ki nga xam ne mooy Amadou Kane mais maintenant ku mu neex nga jàpp ni ñëw nga fii pour yow bu ñu la éliral doxul nga dem créer beneen structure mm-hmm. kooku am nga ci droit mais booy seet ONCAV ak ONCAV ONCAV boobu nga ak ONCAV ONCAV nga xool structure am nga xool ongaam naka la structure wu ŋàññi wu ñu kenn de mm-hmm. mais ku ci nekk xam na le mouvement national ONCAV le mouvement national traditionnel mm-hmm. et avec Amadou Kane mm-hmm. te tout s'est passé dans les règles de l'art donc noonu la demee noonu la demee maintenant nag comme ni ñuy wax rek toujours am na yoo xam ne bu jaaree yoon keneen bu jénnee fële ni jaaru yoon ni ñu jàpp ni jaaru yoon loolu kenn mënu ci dara mais en tout cas ONCAV moom benn la c'est indivisible hmm. léegi ndax yéen a ngi xalaat ci li nga xamante ni moom mooy euh, fexe ni moom mooy euh, nawetaane parce que gis nañ ne waa ligue bi euh, ligue professionnelle ñi ngi ñoom ñi ngi jéem a def mais ba léegi li nga xamante ni moom mooy nawetaane dafa des ci wàllu professionnalisation wu seen ay footballeur yéen ak yéen parce que pour nga football benn équipe dañ naa la daal daal daal laa la mën a jox wala yéeg lii est-ce que yéen xalaat ci domaine boobu au moins ngeen di fexe noonu di professionnaliser dem équipe mag yi ci mel ne équipe yu nekk ci ligue bi wala sax dem au niveau de la sous-région yu ndax yéen yéen ci def ay jéego def la promotion de certains joueurs yi nga xamante ne ay talent lañu. waaw xam nga nag ku ci nekk nag dañ koy bàyyi gërëm. Hmm. xam nga nawetaan moom nawetaan la na mën a génn ay temps. effectivement hmm. or booy seet sax booy joueurs yëpp nawetaan la ñu jaar. Hmm. mooy seen base fa la ñuy jàngee lépp. fa la jàngee raam fa la jàngee lépp ba ba ñuy taxaw daw. mais xam nga tey am na lu bëri da nga koy bàyyeek ka ko moom. mais toujours est-il que booy au niveau du mouvement nawetaan les volets des licences am na boo xam ne day dem à la fédération. Hmm. pour au moins joueur bi su demee ba signer ASM d'origine am da ciy am dara. Hmm. loolu Amadou liggéey na ci bu baax a baax a baax ak le gens du mouvement nawetaan. Hmm. mais maintenant comme le football professionnel. bokkul ak li nga xam ne mooy football de masse bi. xam nga nga xam ne ci trois mois lay yem. après amul yëg amul wàcc. comprendre bu ñu joué compétiré. kon nawetaan nawetaan amul yéeg. nawetaan amul yéeg amul wàcc. Mhm. les ASC toujours ñoo fi nekk li may wax xale yi amul yéeg amul wàcc. Mhm. bu ñu la gañee ren déwén nga defarwaat ñëw te bu doon natt la soo gañee ren bu dee douze ASC ngeen di nga toog douze ans soog a gañewaat. Mhm. donc il faut fu mu toll nii mooy nga ku nekk mën a muñ. donc daal loolu mooy li nga xam ne tey mouvement nawetaan nag avancé na par rapport ak joueurs yi. parce que di nga ci gis ASC yoo xam ne nii. tey joueur bi ñëw wala joueur nekk au niveau de leur quartier pour ñu joue mm-hmm. dinañ la jox dàll. danañ la jox benn montant boo xam ni te bu njëkk ba pratiquement amul woon. Mm-hmm. loolu mais am na tamit système de transfert. xam nga mm-hmm. tey dix mille la. ASC d'origine bi am ci cinq mille noonu lay demee. donc daal loolu mooy li nga xam ni moom mooy réforme yi nga xam ni nawetaan jël na ko. tey képp koo xam ni nekk nga joueur de renom beneen ASC bëgg la. c'est laissé à l'appréciation bi nga xam ne hmm. waaw mu jeexal ci lenn mooy coowal licence hmm. parce que loolu moom yaag gis ay xeex yu am naan joueur bi ki nekk si tur nekk si licence bi ak photo bi bokkul hmm. tepp teppi tafi ndax loolu yéen ci liggéey parce que defar licence boo xamante ni bi day neex a teppi ñoo taf def koo xamante mooy loolu dernièrement ndax loolu yéen ci liggéey ngir mën a euh, loolu du mën a nekkati ci li nga xamante moom mooy fraude euh, yi am précédente kenn géewul licence boobu mm-hmm. les licences maintenant sont numérisées au mm-hmm. niveau de lo e de Dakar au niveau de l'ONCAV mm-hmm. loolu am na ngande amélioration Amadou te am ngeen fiche technique yoo xamante ne day identifier jour yëpp dama ni loolu c'est loolu moom teppitaf moom c'est fini. Mm. en tout cas à à l'heure actuelle. Mm. Mm. toutes les licences sont ñu ngi ci phase numérisation. Mm-hmm. mais maintenant nag foo dem àdduna. comme boo gisee ñuy def commission qualification règlement pénalité. di prévoir ay sanctions. mais effectivement il faut am na ñoo xam ne toujours dañuy tenter di frauder. Mhm. mais gars yaa ngi fi. Mhm, toujours am na loo xam ne ñu prévoir na ko Malick dégg na loog moog moog Léon ñoom ay kii lañ ay joueurs fraudeurs lañ. coupe bi nga xam ne Sénégal jël na ko coupe d'Afrique bi lan la mën a apporter équipe nawetaan bi ak boo amee message booy lancé suñu autorités yi ndax wax nga ko jafe-jafe yi bëri na ci ci biir li ngeen manqué tam bëri na. waaw sant yàlla nag félicité bu baax équipe nationale félicité le peuple sénégalais. lu luñ doon xaar lu yàgg la yàlla boole ñu ci vraiment ñu bokk ci àdduna si ñi nga xam ni fekke woon nañ ko bi njëkk bi ñu ciy sant yàlla bu baax beneen bi comme ni ko président la république waxee rek ñu gën a bàyyi xel ndawu Sénégal yi gën a bàyyi xel xam ne ku leen jàppale lu bëri mi ngi si ñoom mais ku leen jàppale ñu jénne ko mm-hmm. mooy tey jël coupe d'Afrique bi te jàpp naa ni mm-hmm. dinañ fekkewaat yeneen ak yeneen comme ni ñu ko waxee yàlla nañu yàlla may ndam contre contre Égypte. Mhm. bu bu ñu demee coupe du monde aussi ñu dem ba demi-finale suñu mhm. mënee jël nag coupe bi ñu mhm. jël ko. donc loolu mooy li nga xam ne mooy laay wax autorité. maintenant comme tey sur le plan international tour Sénégal gën na yëkkatiku. ñu gën ñu jàppale. lépp loo xam ne dafa doon retombée financière ñu jàppale ñu par rapport à l'encadrement des jeunes. mais ñu bàyyi bañ fàtte nawetaan. parce nawetaan mooy. fi nga xam ne toujours booy seet base la base bi base la pour football sénégalais. Mhm. moom mooy fi nga xam ni moo ëpp supporter. Mhm. mooy drainer la plus de spectateurs. Mhm. en tout cas au Sénégal. ñu bañ ñu fàtte. merci beaucoup Souleymane merci beaucoup Mor Fall. Souleymane yaa di président zone 2 ODCAV euh, nawetaan foofu la ca Médina. Euh, di la gërëm bu baax sa teewaay ci euh, émission bi di gërëm Léon mu fetoon ci technique bi Malick Faye nekkoon ci régie bi. di gërëm mboolem diglukatu euh, réew mi FM di leen jox dig daje mercredi bii di ñëw même heure même fréquence beneen thème ak beneen invité.